لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفهم قولي بسم الله الرحمن الرحيم ربنا نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض شهرك ورفعنا لك سكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرحت فانصب وإلى ربك فارغب mbokk السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته barakaatuhu جديد jullit yi yéen ñi nga xam ne yéen faral di seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di amaat mbégte di dajawaate di yéen ci beneen numéro tey jii nag suñu invité bu ñu tuddee aw turam wax aw santam xel lépp dina dem ci ku tedd gi di xaadim rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di Mbàkke sëriñ Mamor Mbàkke nag moom lañu invité tey seet si fii di émission bi tudd xam-xam ne fas yéene dafa moom ay waxtaan su ko defee ñu waxtaan ak moom ci ay jaar-jaaram waxtaan ak moom it ci taalibe yi mu àndal ci lii mu àndee ak ñoom lu tax mu ànd ak ñoom ak lan la fas yéenee ànd ak ñoom ak leneen loo xam ne rek war nañ koo laaj dañ ko laaj ci biir émission kon sëñ bi ñu ngi siyaare balaa ñu tàmbalee émission bi nan la bàyyi ñu ñëw. ok jërëjëf aouzu billah bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah wa salaatu wa salaam ala ashrafil mursalin سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين جرجف سيد مولو نيو لاي نويو ديلا تشاري دي جيتال خليفه العام في طريقه المريديه سيرن شيخ سيدي المختار مكه ديكو نيانال مو في لول تاند اك وير ba liggéey bi nga xam ne naal na ko liggéeyal ko maam ju tedd ji suñ borom defal ko آه، sunu sunu sunu bunt ci ku tedd ki muy ya. sëriñ daam abdourahman mbàkke di xalifa cheikh ibrahima ñu koy nuyu baax di ñaanal moom gudd fan ak wér li mu naan liggéeyal maam ji tedd ci suñu borom defal ko lu kawe ak njortam ak sëriñ suñu di rakkam di jëwriñam ak mboolem njabootu sëriñ tuba gi yépp jërëjëf sang bi loolu mooy bi nga xam ne ñu yëngu ko di yoo xam ne néeg lislaam la ginnaaw ba nag bu ñu nuyoo ba noppi ñu fas yéene nag dugg ci waxtaan yi fas yéene dafa jëw ay waxtaan émission bi gis nañ ne kenn ku nekk koo xam ne invité ko rek gis nañ ne maanaam solo si nga xam ne am na ko ci koo xam ne ku la xamul woon daan na dégg dina la xam képp koo xam ne ànd naa yow it dina xam ci li nga te ñun jàpp naa ne li ñuy woote bi dañuy wa maa aataakum rasuulu fa xusuuhu wa maa nahaakum anhu fantahuu yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam suñu borom moo ko ne woon li leen yonent bi indi ngeen dara ne ko bàyyi ci diine ak sunna kon balaa ñoo tàmbali waxtaan yi damay njëkkalaat kan mooy sëñ Mame Mor Mbacke maanaam fan fan mooy sa cosaan. waaw foo sëñ Maam Mor moom taarixam daanaka du nekk lu jafe daal daanaka géejawaay gii ñu nekk tey fii laa ganisee àdduna ah, lu bari tamit ci xam-xam daanaka fii laa ko jàngee ah, sama waajur sëriñ Xaadim Mbàkke mu Cheikh Ibrahima di ko ñaanoon suñu ay leeram te taas ñu ci barkeem Euh, fii la jànge alxuraan su bari ci ay daara yu nekk fii ci Géejawaay ak euh, al azhar bu Cheikh Mouhamadul Muxtada foofu it laa doon nekk naa fa ñetti at euh, ba ma fa jógee nag ba léegi maa ngi sàkku xam-xam waaw ba léegi maa ngi ci di di sàkku xam-xam ci daanaka ci ak ngàttal daal daanaka sama lépp géejawaay la taarix bi waaw waaw. ma fàttali leen it sunu invité tey bi di sëñ Mamor Mbacke mooy juróom mooy sëriñ Xaadim Mbacke sëriñ Xaadim Mbacke sëriñ Ibrahima Mbacke moom sëriñ mooy mooy waajuram loolu kon loolu càllal bu gàtt la daanaka daanaka kon kenn képp dox sa diggante ak sëriñ kenn kenn kenn ci dox mooy sëriñ Ibrahima ñaar ñaar ci dox kon loolu muy loo xam ne ah, daanaka suñu invité tey bi moom invité bu tedd bu màgg la invité boo xam ne maanaam dinañ sawar ci invité ko yi ñu waxtaanee xam-xam ndegam wax nga sa cosaan euh, bokk na ci li ma lay laajaat mooy gis nañ ne fii ci Ndakaaru maanaam sa tànk fi de ëpp nekk gis nañu ne yor nga fi mbooloo te mbooloo mi ngi fi yor da nga am émission bi xam-xammee la faaw ñu waxtaanee xam-xam ba ñi nga xam ne ñoo ànd ak yow yi ñu mën a xam ne ci li nga woote. ci li ngay digle ak ci li ngay tere ñu bëggoon a xam mbooloo mi nga àndal ci lan nga ànd ak ñoom ak ci lan nga leen di woo. Mm, mooy ñi ku tedd ki àndee woon ak mag ñi rek xëy na dana jafe sax ñu àndee eh, ni mu àndee woon ak mag ñi xëy na sax loolu dana jafe ñu ànd kook ñoom. ndax Sëñ Tuubaa moom kenn du moom. waaye li ëpp solo mooy ànd ak ñoom ci siratal mustaxima ni ñu ko sëñ Tuubaa diggalee ngir ñu ànd ko ak ñoom ndax ki nga xam ne dafa bàyyi lépp bàyyi fépp ñëw euh, jox la boppam àdduna ak alaxira kooku dafa am lu manquele jàpp ne yow yaa ko am ngir nga dolli ko ci moom waaw ah, kon kooku war ngaa nekk seexul murabbi bu mat boo xam ne naka su ñëwee ci yow rek lépp loo xamante ni manqué na ko bëgg nga jubal ko bëgg nga teg ko ci yoonu siraatal mustaqim mu fekk ko ci yow ndax euh, moom ndax loolu muy wut ci yow dafa nekk lu am solo dafa nekk responsabilité ndax ñu bari dañ koy ndax du du loo xam ne amour la xam nga du loo xam da ngay dégg ku ne man kat li may def bëgg-bëgg la ci man waaye li nga xam ne mooy dajale nit ñi li leen yóbbu ci yàlla dafa weesu amour maanaam dafa weesu bëgg-bëgg responsabilité la ak engagement boo xam ne sa digg ak nit ñi la waaw ndax li nga leen di won ak fi ñu leen di teg siraatal mustaxim la waaw te siraatal mustaxim soo ci bëggee teg nit maanaam faaw nga ne ko ci tuuti waaw moo tax euh, ni ñu wax ni ñu ànd ak ñoom mooy mooy mooy fonk leeloon seen i ñaari waajur bu ci njëkk euh, di leen di ñuy jaamu yàlla euh, boole kook liggéey boole ko joxaat ndax ku tedd moo waxoon ne tuba li abdil muridin saadihin laxomo bi xitmati aw bi hubbi aw hadfiyati kon loolu rek daanaka mm, matal na loolu waaw ba ba tax na képp koo fi gis rek ni ñu àndee mooy siraatal mustaqim ndax sëñ Tuubaa dafa waxoon ne maa ngi digal képp ko aju si man ngay jëfe lépp lu baax waaw mu ne soo si nekk mu ne lu baax loolu ma lay digal saa yoo si nekkee jàppal ne yaa ngi si man waaye boo si nekkutul jàppal ne sori nga ma waaw waaw loolu dal mooy li nga xam ne moom waaw loolu la àndee ak ñoom euh, naka du ko génn siraatal mustaqim rek ñëpp ñu ànd tegu ci ndax sa Abdou Lahad da doon wax ne suñu digg ak sëñ Touba maanaam njabootam yëpp jaay nañ seen juróol jëndee ko ak taalibe ñu lay digal li ñuy digal taalibe yi di la sant li ñuy sant taalibe euh, kon loolu ñun ci la nekk rek waaw saa saa su ne baatu sëriñ day ëpp daanaka seeni jëwriñ rek lañu boo xam ne moo leen di jiite ci daxaw bi kon loolu leer na ci ci ànd bii nga ànd ak taalibe yi fas yéene leen teg ci yoonu siraatal mu saxee ànd ak ñoom ci ci liggéeyal yàlla li jaamu yàlla ak liggéeyal Sëñ Tuubaa ak di joxe addiya comme noonu bu ko leeralee kon loolu leer na ba képp koo xam ne rek ànd naa yow dina xam ci li nga dina xam yi ci li nga koy digal ak ci li nga koy tere bokk na ci euh, maanaam loo xam ne nii maanaam dégg naa ko. ndax euh, ñun moom balaa ñuy ñëw ci nit dañuy gëstu. Mm-hmm. ba am nañu fooy ci ci wéy mbéy. waaw ah, jéggi nañ di ngi faral di yëngu ci nasaraar te yàlla may la ci loolu it. Mm-hmm. waaw te ñu gis ñi nga xam ne dañuy faral di dajale mbooloo di ànd ak mbooloo di leen yóbbu ca yàlla ñu ñu ne ay dajale mbooloo ñu ne Serigne Touba sama nga am mbooloo ci barkeb si Touba. bëgg dajale mbolo moma and ak ñoom di liggéeyal yalla ak jaamu yalla ba nopi def la sa lool yéme la ndax jot gi dina la ko may jotuk manam nek talib yi ñu lay gis di ak yow ndax dina la mëna may nga nga mëna bolé la sa ak talib yi wa lool mom danaka yépp tedd ki rek rek moñu ko moñu ko denk waye la sa gi yépp xomul sax ku la ko wax waye la sa gi yépp weesuwul alquran waaw mooy sunu sukkandikukaay mooy sunu royukaay xëy na ñu mm, nga baal ma sax foofu xëy na du ma ci bëgg xóotal loolu ci wàllu rastaar googu waaye daal li si am solo mooy sëñ Tuubaa moo nu ko xamal te li tax mu xamal nu ko mooy di si dimbali doomu aadama yi di si faj seen i bëgg-bëgg ak seeni soxla. waaw foofu daal xam naa ci la ci mën a yem ci lasaraag yooyu bëgguma waaw bëgguma koo xóotal lool. waaw waaw waaw. dëgg la mm-hmm. nag ndegam loo xam lu ñu dégg la. waaw alxuraan bi waaw da bàyyi a nekk la. lu war a mën nekk la. Mm-hmm, mm-hmm. gis nañu it ne. ab sëriñ. Mhm. dagam dañuy gëstu dama ab gëstukat laa. Mhm. te alxuraan nee boo xamul mhm. laa laaj ñoo xam ñoo xamal. parce que allo ahla si kii ci laa tax na ko. waaw dañoo dégg ñu faral di ñu ne sëñ moom moom ku xaw ay ci karaté la. waaw moom sport moom sport moom bëgg naa ko lool waaw damay dama dama koy faral di di def. ban moo tax nga koy <laughs> loolu sax ndax ñun ñun suñu ñun suñu aarwaay mooy sëñ Tuba. ak xasidaam yi tedd yi moo tax duñu moo tax duñu tiit ay yooyu yooyu nga wax léegi ay daal maam sport daal bëgg naa ko waaw li nga wax it maam di li nga tudd karaté bi nga tudd koy def maa koy def xaw naa si sori jox tuuti maa koy def daal xaw naa si sori waaw sori bu si taxal ko ba <laughs> la lii sport la sport mu. yéen bi salaa ko bëggoon sax. Ah, waaw te mooy sunu te mooy sunu rayukaay. Ah, te sëñ Tuubaa moom lañuy ñu digal ne ñu ray ko. waaw ah, kon loolu rek la waaye du leneen. waaw ak ñaata daayira nga am fii ci Ndakaar. Mhm. ak maanaam système moom ñu ñu ñuy àndee seen biir. waaw ak lan mooy seen secret. waaw xam waaw loolu mbooloo mi moom mi ngi tudd aljamaahatu rahma aljamaatu rahma mooy mboolem yërmande waaw xëy na euh, suñ xëy na dana jafe nag ma lim ko lool ndax xam na loo gisee man après sëñ Yuusu xëy na moom dina leeral ñaata la géejawaay yaatu na fi waaw géejawaay yaatu na fi lool lool lool ba dimanche bii passé rek euh, nga xam ne ci ngeen joxee rendez-vous suñ borom dogalu ko waaw mbooloo mépp daje woon na fi waaw waaw mbooloo mépp daje woon na fi suñ borom suñ borom dogalu ko waaw waaye daal ñoom li si ëpp solo mooy moom liggéey bi aljamadu rahma sama mag sama kilifa sëriñ Ibrahima Mbacke ñu gën ko xam si sëriñ Bari moo ko taxawal ah, man ma nekk rakkam ñu soppante أخصنت وهو هنا وجه السخير ناي وحير الكبير وجه الكبير ناي في السخير جلو الله تنكو أكمام مدقن تتالي بأكسري دقن تماغا أقرب كتغلي أبو سمو دقن أكمام دقن تتالي بأكسري بقوي لغي موتا خوالون الجماعة الرحمة جي 1997 نيب نيك تدسي ينغو دسي ينغو بيال ñu nit bi ñu ñëwee tu xam-xamme ñu si dox sunu ñu si dox sunu waar ndax liggéeyal sëñ Touba moom moom ñëpp la war waaw rawatina ñun ñi nga xam ne nag ñoo bokk ci moom bi yàlla dogalee ñu si ñu si góorlu di sampi daayira di sampi daayira ba tey jii euh, ñu mu yaatu lool ba ci international peut dina la wax fu nek taalibe ma nga fa ci liggéeyal sëñ touba ci aljamaatu rahma wa waaw léegi sëñ jama'at aljamaatu waaye moom lu tax ñu and rek ak ñom ni ñu andé seen biir manam li ci ëpp solo moy mm, solidarité bi ndax turu daayira bi wuyu na boppam al euh, aljamaatu rahma wa ndax aljamaatu moy mbolo rahma di yërmande wa kon euh, lor rek suñ ko andé ñom manam yermande gogu rek suñ ko andé rek manam lepp mën baax waaw li lépp mën naa baax comme li ma la wax sànq rek euh, di leen di leen di leen di leen soññ si jàmm yàlla bu baax waaw di leen fonkloo seen i wayjur suñ leen tanee képp koo xam ne tane nañ képp koo xam ne tane lañ la si dimbali la waaw képp kuñ raw it xaar la képp koo xam ne yilif nañ la it maanaam maam wekk la ndax yooyu dafa am solo waaw nit soo ko yilifee da koy wekk soo ko tanee da koy dimbali soo ko rawee da nga koy xaar waaw yooyu noonu bokk na ci yépp solo yi si ëpp nag di ay jigéen ndax dañu ne àdduna moom suy dox ndaw la ak jigéen maanaam ñoo ko mën a doxal. kon si ëpp jigéen am na ay góor si ëpp jigéen la waaye ah, jigéen man maa ko si jublu waaw ndax ndax nga wax man maa ko si jublu ndax ñoom. Euh, dafa gën a gaaw ci maanaam su àdduna jege rek ñoom bokk nañ ci ñi koy jagal waaw euh, rawatina yu yi nga gis lii rawatina yi nga gis léegi ci jamono ji waaw dañuy bëgg jigéen ñi ñoom ñi nga xam ne ñoo bokk ci aljamaatu rahma képp ku leen gis bëgg a mel ni ñoom waaw maanaam ñu nekk ay exemple yoo xam ne képp ku leen gis rek bëgg a nekk murit waaw ndax am murit daa war a maytu képp koo gis ne ko acam waaw murit war naa defar comportement am war naa mel noo xam ne rek ndax sëñ Tuubaa doon wax ni da ko wax si njaareem ne musuma def lu rusloo sama taalibe kon sama taalibe warul def lenn lu may rusloo waaw kon euh, mu waxaat ne euh, baadoo leen ma rusloo ñu ne ko mbàkke euh, mooy lan mu ne rusloo ma de mooy nga jóge ci man ba noppi ñu gis la da ci leneen lu wuteeg yow lu wuteeg man kon ci loolu lañuy ñuy fas yéene di nekk ak ñoom waaw waaw ci loolu rek lañ fas yéene di nekk ak man li ma ciy bëgg a laajaat ci biir laaj bi ma mhm. di gis maanaam fu mbooloo mhm. seetaan mën na faa mhm. ndax yow ndegam seetaan bi jigéen ñi ci ëpp ndax ñu takkante seen biir. waaw loolu loolu loolu daanaka bis bu yàlla sàkk rek. Mm, su ma waree am ak jotaay ak ñoom. Mm, bokk na ci li may wax ak ñoom. waaw comme que. waaw waa ñu toll si sëy du dem sëy ñi nga xam ne dañuy ne si liggéey bi bëggante ci ñu may leen rek ñu sëy waaw loolu moom daanaka bari na fi sax am na fi daanaka du fi jàpp. waaw waaw maa ngi ciy dox ay jéego. daayira bi ku si nekk xam sa wàll. su góor ñi am nu nu toogee ndax lislaam la ndax liggéeyal sañ Tuubaa moom mooy mooy lislaam waaw kon sooy wootee ci lislaam war ngaa méngu maanaam war ngaa teg sa tànk ci charia waaw waaw war ngaa teg sa tànk si charia te ku kan te ku ne xam ne charia moom li muy su nekk mooy jigéen ak góor maanaam di di daanaka di séparé wu saa su nekk si loolu nag la ñu am na ñoo xam ne ñu ngi si ñu ngi si bëggante ñu leen di maye waaw ci farata yàlla sunnas Muhammad loolu daanaka maa ngi ciy dox ay jéego yu mag a mag a mag ba nit su ñëwee sax ba ne ma sëñ bi dama bëgg sa taalibe sàngam dama siy gën a damay kontaan maanaam rawatina nag yaa nga bokk ci liggéey waaw loolu moom maa ngi ciy dox samay sama waaw maa ngi ciy dox jéego yu yu am solo waaw waaw. bokk na ci li nga xam ne bëgg naa la ko laaj. ndax xam-xamee mhm. te ku a gis boppam. Mhm. ci li ñuy mhm. seetaan te daan la dégg xam. xam ci li nga xam ni ci sa tànk. bokk ci am ngay jinne waaw xam naa nag moom mm, sëñ Ibrahima Mbacke euh, sama maam wax nañ ni amoon na ci yu bari sax. waaye moom Serigne Touba. nañ ne amoon na ko bu yàgg ndax moom moog sëñ Fallou ku xam ne ay wóoleer lañ woon wax nañ ne sax su màggal gi su màggal daan jub si sëñ Fallou daf koy woo. waaw ne ko Ibrahima ñaata nit ñooy ñëw ñaata nit ñooy faatu ñaata jinne màggal si waaw xam ne sëñ Fallou ñoom ñaar waaw sëñ Fallou moo ko doon laaj sañ Ibrahima waaw nan ko nit ñaata nit ñooy ñëw ak ñooy dellu ñaata jinne ñooy ñëw yooyu yëpp sëñ Fallou dakk daan laaj waaw moom daal xam naa ne moom amoon na ko wax nañ ñi amoon na ko waaw man moom Euh, comme ni nga ma fekkee ni ab ndongo rek la bu xeeb bu ñàkk solo boo xam ne. waaw euh, waaw loolu moom xëy na <laughs> mhm, mhm. ah. xëy na day jafe sax ngir ma wax ci xëy na dana jafe lool pour ma wax ci ndax mbiru jinne moom xam na classe yi suñu asan gi dana ko xam waaye man euh, li ma mën a wax daal xam naa ne moom mooy mooy ab taalibi sëñ Tuubaa la daal bu xeebu bu ñàkk solo di ko liggéeyal si

lépp lu aju ci ci ci diina rek ya nga xam say farata waaw fexe nañ ba di leen jàngal alxuraan fexe nañ ba di leen jàngal xaside sëñ Tuubaa yi waaw surtout waaw daanaka bis bu nekk rek bis bu daanaka bis daanaka samedi bu nekk rek daayira yi si bari ci géejawaay yi bisu la ñuy daje waaw bisu samedi la ñuy daje su dimanche nag ñun ñëpp ñu daje taari bi yëpp daje def def waaye si biir daay dañ ciy jàng dañ ciy jàng alxuraan dañ ciy jàng xam-xam dañuy fexe it ba ñoom ñëpp xam seeni farata ak seeni sunna. sëñ Ibrahima Mbacke moom mooy mooy mooy sixième juróom-benneelu doom. ñu yëpp yëpp ku tedd ki waaw. mom ay wajuram gànnaar lañ jóge waaw ko gànnaar lañ jóge soxna Fatma Kubra moy wajuram mom ak seigne abdullah borom dër bi juri la ñom la seen wajuri yi ku tedd ki amé won gànnaar bi mu ci tukki ba Cheikh sidi Baba moko ko moko ko seigne bi dana dafa dafa tedd gént yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu diggal ko ne ko Euh, nee na yonent bi digal ko ne sama xeet kat maanaam di nga am si samay xeet ñaari soxna euh, ci la amee soxna ma Suxra ak soxna Fatma Kubra waaw euh, soxna ma Kubra mooy yaayu sëñ Abdoulahi soxna ma Suxra mooy yaayu sëñ Ibrahima Mbakke moom nag dafa dafa dundam yàggul ndax bi sëñ bi demee bi demee Gabon it maanaam ci weeru koor ci weeru Shawal Euh, dafa jot ndigal lu jóge ci ku tedd ki euh, sëriñ bi ne ko sama yoon bi ma defoon sama yoon bi ma demoon gabonkat laa bëgg nga toppaatal ma yoon woowu waaw euh, mu ne ko dem mu ne ko bi ngay dem mu ne ko mu ne ko bi ngay dem ba bi ngay ñëw bul pàcc xaalisu kenn ku dul sab xaalis waaw mu toppaat ko mu yëngu xam naa du fi xàcc bi ni mu ni mu yàggee waaye mu toppaat yoon bépp. ba ñëw ndax 1912 ba 54 wala 55 ci la fi jóge ma ne ko dundam gépp 43 ans la waaw moo tax yàgg fi bi mu jógee ci tukki boobu nag ci biir at moomu la génn àdduna moom waa bokk si kenn baay. waaw ñoom ñoo bokkoon jóge gànnaar ñoom it ñoo bokk ay maam. waaw ñu bëgg imam waaw ñu imam waaw waaw ada la dëgg la waaw waaw ada doo ko miin te doo ko miin dëgg la dëgg la bokk na ci li mu bëgg a laajaat muy taal bi ànd ak yow loolu maanaam lan lu loolu mooy yoon wi ku tedd ki tegoon tànkam ak mag ñi waaw moo tax ma ne la dana jafe sax euh, ñi ku tedd ki ànd woon ak mag ñun ñu àndee ko ak moom ak ñoom wax dana jafe waaye su ma la waxee siraatal mustaqim teg sa tànk si sunna euh, di roy sañ Tuubaa fexe ba euh, soo fexe ba soo ba soo solee sa bu di dem kenn du la xool mukk di la jaawaleeg leneen lu dul ab murit maanaam defar sa comportement waaw waaw defar sa comportement maanaam ànd ak sëriñ boo xam ne it nag da wan suñ boroom waaw suñ tubaab dafa waxoon ci dafa waxoon ci masaar lig ne euh, képp ku la tegtal ku dul yàlla mu ne dawal ci moom dawal ci moom mu ne maanaam mm, mm, mm, mu ne maam na ko sori maam te xam ne na ko ko te xam ne jëmeewula si dul sànq la waaw mun dafa kull man siwal illaahi dallaka fa firra minhu innahu adallaka waaw kon loolu it dafa am solo waaw képp koo xamante ma ni rek maanaam ci yoon wi mu lay teg mooy yoonu baax mooy yoonu siraatal mustaqim na nga ko jege waaye képp koo xamante ma ni maanaam lam lay teg xam nga ne maanaam du tegukaay du siraatal mustaqima manam sëñ touba ne nang ko sori ne eh, nee da nga ko waxtu maanaam te yemu ci nga nang ko sori lo man wa te li li manam li bari ci jamono ji moy eh, so so amé engagement di woté eh, di dajé nit ñi di leen yobbu ci yalla war nga am ay comportement war nga am jikko yo xamanteni ñom mom ñoom moom lañ ci biti ba ñew japp ne ya ko am kon jikko yooy yow euh, war nga see nekk ba noppi. jikko waaw jikko yi bari na jikko yi bari na jikko yi moom bi fi njëkk mooy jub waaw maanaam njiit waaw njiit day jub euh, da ngay maandu waaw da ngay da teg sa tànk ci sunna waaw sëñ Tuubaa moo ne maanaam yéen ñi aju ci man bu leen wuteeg mukk na ngeen fexe ba bu leen na ngeen fexe ba bu leen wuteeg sunna waaw na ngeen fexe ba bu leen wuteeg charia waaw kon soo soo tegee sa tànk foofu na nga fexe ba ba maanaam ñi la toppit ya nga fonk loo leen seeni ñaari wajur fexe ba luñ am fexe ba lu ñu am di ko jox seeni i waajur waaw waaw maanaam su desee suñ la si yéenee jox la ci waaw waaye maanaam li sëñ Tuubaa doon digle tam nekk lu ko amal solo mooy ab murit moom day fonk ñaari waajuram waaw ko day xëy liggéeyi day jaamu yàlla waaw waaw day jaamu yàlla ni mu waree waaw yooyu daal moom Cheikh mu rabbi bi nga xam ne moom moo war a woote moom noonu maanaam bokk na ci jikko yi mu war a jikkoo waaw bokk na si jikko yi mu war a jikkoo soog a ndax Sëñ Tuubaa waxoon ne ñu si bari dañuy samp di woote ab sëriñ waaw te walam yu mayis bay na far di musulma mun na ñu si bari dañuy woote di ñu si samp di woote ab sëriñ te mënuñoo ràññatle seeni farat ak seeni sunna waaw te loolu bari na loolu ci réew mi waaw loolu laa wax sànq ne la woote moom du benn bëgg-bëgg booy am rek waaw woote moom engagement la ak responsabilité waaw waaw waaw engagement la ak eh, responsabilité am ndax nit ñi dañuy ñëw nit ñi dañuy ñëw ngir nga yóbbu leen si borom waaw nit ñi nag suñu ñëw ngir nga yóbbu leen borom nag war am comportement rumah war am war ngaa jub war ngaa maanu war ngaa sell eh, ba bu ñëwee eh, nga mën leen waxe nga mën leen tegtal ne leen yoon bi ne ya nga mën leen wax li nga xam ne. kon sëñ bi jotoon nañu na sa taat bi loolu mu ngi ci wàllum si karam yooyu. ñëpp mhm. jot nañu koo def ci kër gi. Mhm. kon ñu dem seetaan loolu di ñëw. la ilaha la la ilaha la la barambala barambala la ilaha illa allah ilaala faal sëriñ saali woo yaa nu moom la borom baax baari maam booy xaadima yàlla daal maam nga yëngoo faal maam borom Mbàkke xaadima daal yëngoo borom ba Seexuna Maam Saaliwo borom jaam ñépp yaa waafal Sëriñ Saaliwo ñun yaa nu moom la borom baax la misaali wala borom baax la borom baax Seexuna Mbàkke Saaliw borom jaam ñépp yaa la la la la la la oh. la la la la oh. la ilaha illallah oh. la ilaha illallah la la illallah oh. la ilaha illallah syekhuna ya la dal mam ya la dal ngeyenggo bari mam khadima mare, bari khadima magu mamor mbake kenanga la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah bu yëglu woon dunu fi feccoo sëriñ Salim wa wallaay kon ñu dem mu des nanu moom kat bane fees ndax nanu moom ndax nanu moom kat bane fees ndax nanu moom ndax nanu moom kat bane fees li des fi ñun ku ni defal sa Saliou waay ay bay Saliou sëriñ Salim waay ci sëriñ ci Serigne Saliou naa lam wi tax na ñëpp gëm yàggam fi ak wérug cëram bim tàmbalee ñu gën a gëm mu daal di dem te àggagul demam gi nag daal di si ñun tey jii ma wax mu des si ñun danoo bëggoon mu des si ñun bañ am ngërëm ami alal bu ko defee ñu ami ay doom yëkkati leen andi ca moom mu defar baawaay defari doom lin mébétoon na ngi amul alhamdulilahi ndëgëm ñun ñoo mujjee ci ay loxoom ñoo mujju tam ci am xelam wallahi lii doy nga neel te yàlla buur fayal ko li gën ci moom te teeru ko jëfam ci ñun matal na ko dellu di xaadimu rasul jazaau rabbuna alkarim ala ala xalifati alxadim saalixina inil xadim xad kaana yukammilul amal laa biram nga yaatu na yërmandeem nga yaatu na bëggum ndawam nga yaatu adduna ci Serigne Saliou kuy ndaw jugal ñu sant ko te jooy ko ndax nu defal budul ko nag la yàlla wax ci alxuraan kon ñu jooy ba fekki ko faalum li maayu riim coobareem ca lay jëf jëf na ba wuutu sang ba ci seexu naa Saliou la Seex Bamba defoon la ma defoon la Seex Bamba defoon ca mag ña wëy moom la xëy defaat ci ndaw ñi le ndaw loo ca gis kanam ganaan kanam ganaan cey Sëriñ Saaliw amina amina amina nee amina ndax nu boole nu ci yërmandeem gu yaatu ja cey Seexuna Saaliw àdduna yaa ko mën a war xamoo lu baax xamoo waloor ku fi taxaw ko war saw melokaan amul solo sëx saali waay ay baay saal sëriñ saali wetal nga nooy sa dem gi daal jaaxal nanu yow lan amoon nga dem ba nooy fu nuy jëleeti xel mu dal Seex Saali woonu daa xamal ak yonent bi bégal tarbiya moo ko digal kuy wutu kii ci li amul ci Sëriñ Saali wooy jërëjëfe borom Tuuba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gàcce nga alama borom daaru almuxti Cheikh Baari Khadim Mbacke yàlla na fi yàgg te wér Cheikh Mamor na ñëpp am jàmm sant nañ bu baax jërë ngeen jëf jërëjëfati barkeb Cheikh Ibrahima Mbacke barkeb Serigne Khadim Ibrahima Mbacke barkeb Cheikh Baari Khadim barkeb Serigne Mamor Mbacke Khadim Euh, ñuy sant yàlla bu baax a baax ci jataay bi ñun nag sëñ bi mën na wax ne duñu judd topp ko ndaxte waajuram bu tedd ba di sëriñ xaadim moonu yar def ci ñun li li mu war a def ci ñun lépp nga xam ne daanaka mën na wax ni ñun dañoo xàmmee rek xam kuy sëriñ xaadim sëriñ xaadim moo ñu yar def ci ñun li mu war a def ci ñun lépp ba njabootam gi macha allah euh, ñëw fii teew sëñ xaadim làqu ci sunuy bët ñu continuer ànd ak njabootam gi kon sunu sunu ànd ak euh, euh, sëriñ bi moom daanaka mën naa xam ne dunoo juddu rek ànd waaw mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah ñëpp waxtu yi nag dafa gàtt lool moo waral ne niveau bi sax du mën a gudd waaye nag lu ñuy bëgg a xam tuuti déew su wax mooy fi ngeen dugg ci kër gi ngeen dugg muy kër Cheikh Ibrahima Mbacke moom xaadim rasul di kër Serigne Touba it fii kër Cheikh Ibrahima Fall a ngi jàkkaarloog moom kon da ngeen nekk ci bërëb Touba ngeen nekk ba tey néewuñu buñ dee géej waaye di a ngi biir Touba kon bu nu waxee loolu ba nopp ngeen dugg fi indi fi émission bi nga xamee si day xam xàmmee la kon fii war nañ koo xam xàmmee ko. ba képp ko wax ndax fii fi la ñuy yaree euh, ndaw ñi fi la ñuy defaree ndaw ñi sëriñ euh, sëñ bi nag lu ñu ci mën a wax mooy fii ki nga xam ne si mooy sëñ Ibrahima Mbacke muñ naan ko sëriñ Bari Mbacke mi nga xam ne si mooy magi sëriñ euh, Mamor mi ñoom daal ci li nu tegu mooy ci yoonu seraatal mu sàq yi ndax ndaw ñi fi nekk daayira yi. woote woote waat bi sax moo waral ni ko waaye daan daan nañ gën a bëri sax su ma leen wax waaye li ma lay xamal li ma leen xamal ci euh, teewaay bi mooy dal fii dañ fiy jàngale ak yar akub taalibe beneen bi si des nag mooy sëriñ bi nag waxu la muy jikkoom jikkoom nag mooy jikko ya mag ña newoon rek nun foofu rek lañ ko xamee woon euh, euh, ah, fa sëñ ba teg woon aw tànkam ndonte dañu ne la mënu faati waaye nag moom rek sela tegu ndax moom si lañ wax dëgg yàlla si loolu lañ ko xamee ndaw la te noon naa nekk si leneen waaye ndaw la loo xam ne léppam si diine l'islam te li Cheikh Abdou daan wax naan kamil bi limi reey ndax jang yeek yep du dar waye kamil bi limi reey rek xuddaan ga rek lam ci doon wax la señ bi doon wax rek ñom nak fa la leen xamé man ci xuddaan ki fofu rek la ko xamé kon nak euh, liñ ci liñ ci doon dolli xamna émission bi dafa gàtt waaye xëy na xam-xammee dana wat euh, euh, mbir mi ba ñëpp man sé jot ndax bari na ci biir war na ngeen xam xamé ci biir ñi yor ndax ay tanne fi wat ci biir mbolom nim yor kon ci baba ngeen door xam ki ban qualité la am waaw waye insha allah gannaaw yoon yëmul ci ben da ngeen ki kat ca la fi maamam bàyyi woon si lañ topp ba tey si si tànki Cheikh Ibrahima Mbacke mi nga xamee ni si moom la Sëriñ Tuubaa euh, moom la Sëriñ Tuubaa doon jëlli ji mu waajuram fële seen euh, euh, ca ca gànnaar ngir fay gañ ko fayee woon dem géej moom la ko doon fayee ñoom seen waajur kon loolu mënuñoo def lu dul defaru ba faaw kon képp ku leen yaakaar da ngay defaru ba faaw te mu doon tegu mooy nañ tegu si yoonu siraatal mustaqim jaar akum njub moom la xamal ñëpp taalibe boo gis rek moom la la ko xamal kon gannaaw émission bi dafa gàtt waaye amoon nañ yeneen yoo xam ne mënoon nañ ko génne dañuy jàppaat ba beneen bis boo xam ne si da ngeen koy yokkal nag kilifa gi ba nu xam xàmmee ràññee li si biir kër gi ndax ruq yi ruq yi duggagoo leen si day na ñëw ci buntu néeg bi ñu dal leen si saal bi waaye àggagoo leen si néeg bi nag dama leen wax ëllëg si biir bu ngeen ñëw fexe leen a yegg si néeg bi ba nu mosol leen li si biir ngeen door a xam kon kan mooy sëñ Ibrahima Mbacke kan mooy sëriñ Bari Mbacke kan mooy sëñ Mamour Mbacke amdi wa sukuri liman kuli bi lauri dan duna sukutin inda sarsara la sana iwarit wanan bila siqatil muskadali min bani daiman ansara lillahi kulla da abaru makrumatan minadar nawafi ajam maman sara inalasina ila sarsara kat kasadu siaratin farahu daraini ini ausara sara ila ibil munajihat وعبدا أخنا يدي أناتي دل علي العلماء والأولياء من لا يسال قوتي والأولياء قصيدتي فاقت قصائد الكرام wali taquudu abadan xayral maraam addiyati muxjilatun kulla malik kaana munaasiyan waasaahul malik ma tawaaju nasaralaahu liya bila ilaha illallah sëriñ Tuuba yaa fi génn réew mi tanaan radiitu yaa tax ñu moom sun bopp tey bay feetu amadu naa daam yaa fi génn réew mi sëriñ Tuuba tanaan radiitu yaa tax ñu moom moom sun bopp tey bay feetu yaa kàbbat ja ja delluwaat ca gaal ga gore la te rey noon ya di gaal gaal ga Sëriñ Tuubaa ñi la gëmul rëccu nanu tey ngir xam na ne béy du sóoru ak boy yaa mën a may nit lu ko doy sa kem amul ci xarnu bi jërëjëfe Sëriñ Tuubaa léegi jot nañu gis ne maanaam am na lu ci jot a fekk. Mhm. maanaam ñu ci wàllu sikar. Mhm. donc fekk nañu fi mhm. na ci li ñu waxtaanee it lu nga ko. sa digg seen i wàllu. teg leen ci bi sax maanaam ñu jaamu sax ci yàlla ak liggéey Sëñ Tuubaa. gis ci loolu. ak bëgg nañoo xam it sa engagement. maanaam. ndax mbolo sa so len dajale faaw nga am lo engagé ci mm-hmm. projet bo xamne tek teg nga ko ci sen kanam dig len ko mm-hmm. projet boobu it bëggoon nañ ko xam waaw waaw waaw projet mom moom daanaka weesu wut nit ñi soy and ak ñom da ngeen di jariñ waaw señ tuba and gën and ak mom moom rëccuwul ko ndax mi ngi ñuy jariñ ci xam-xam waaw mi ngi damay wax ne maanaam ko xamne ne barke bi nga xamne mom nga am moom la nit ñi di xoolee di la bëgg nit ñi moom lañ lay xoolee di jël seen alal di la jox moom lañ lay xoolee soo toogee ci kaw ñu toog ci suuf loolu barkeb jàmbur la te mooy barkeb ku tedd ki maanaam alal ji ñu lay jël di la jox it sëñ Tuubaa tax jàmm gi nga am ba di mën a ànd ak ñoom jàmm gi bi nga am jàmm gi nga am ba di mën a ànd ak ñoom it maanaam sëñ Tuubaa ko fi liggéey fii si réew mi kon kooku lim ñu defal noonu rek ko doy na sëkk ñun nag suñ sëñ tubaa maanaam yooyu kon taalibi sëñ tubaa yi su ku tedd ki taxee ñu topp ñu war nañ mën di leen jariñ waaw ndax dama la wax léegi ne la ni ñu ñoom bokk na si képp kuñ ci tane dimbali la képp kuñ ci raw xaar la képp koo xam ne yilif nañ it maanaam duñ topp yilif gi rek ba yab la maanaam danañ la rus danañ la war maal jox la cër projet yi moom am na jamono yi la passé benn benn kuréel boo xam ne dañ ko sampoon muy mu ñu koy wax diwaanu ku tedd ki diwaanu ku tedd ki day dem ci cinq communes d'arrondissement yi ci yi ci yi ci yi ci yi ci yi ci géejawaay suñ ko defee ba noppi dañuy génn xool yi génn géejawaay waaye am nay projet yu am solo yu fi nekk am na su ma ko teeloon xam sax jël ko waaye am nay projet yu am solo yoo xam ne mi ngi si maanaam ci wàllu social waaw am na yi ay am na ñett association boo xam ne ATA lañ koy wax moom ci social rek lay yëngu. waaw moom social lay yëngu euh, lu mel na suñu demee ba ci weeru koor gi nit ñi leen si gën a gis seen bopp maanaam bu dul weeru koor it ñun si biir si biir liggéey bi nga xam ne dañuy liggéey sëñ Tuba waaw sëñ Yuusu na yoo xamante ne ni maanaam maanaam soxna yi dañuy jënd ak jaay ci liggéey bi. maanaam dañuy liggéey ci liggéey bi waaw waaw dañuy liggéey te liggéey boobu daanaka li ñu si ñor rek mooy ñu am fu ñu féete seen i wayjur waaw ñu am fu ñu féete seen i Euh, ñi nga xam ne ñoo leen yilif waaw yooyu de projet yi moom bari na bari na bari na euh, ko bari na trop ba nga xam ne daanaka su ma ko doon lim tey jii waaw daanaka du jeex moom. waaw jàng naa ko tuuti rek waaye xaw ma see sori nag waaw. xaw ma bi ma ko dakkalee rek rek laa dem ca Azhar Cheikh Mahamadul Murtada loolu laa nekkoon eggale waaye mën naa koo wax mën naa ko mën naa koo bind waaye soriwul ma si. ndax sa liggéey fii ci Guédiawaye lay wala di nga faral di tukki. waaw tukki moom xanaa ci yenn réew Afrique yi rek waaw yenn réewu Afrique yi rek laa jot a dem. waa yenn réew yenn réew Afrique la jotoon ñu ngi waaj nag ñi ngi waaj ay tukki yu bari yoo xamante ne ci diwaanu ku tedd kooku ma la wax maanaam ci lañ war a incha allah gën dem liggéeyal sëñ Tuubaa ci bitim réew incha allah rabbi waaw yang ñu koy wacc inshallah xam nga la ci am solo la gindi ngay waaw deug la deug la deug bu dañ koy jambat sax talibé dañ koy jambat lu bari waaw la ñu la ko waral ndax ñu gëna xam ci yow nga dem su ko defé ñi nga xam ne ñi lay bëgg te gisuñu la wala ñu gis la xam la dina gatam dina xaar su ko defé ñu xam say projet xam say demé lolu waaw waxtaan nañu leral nga ñu lu bari ci sa jaar jaar leral nga ñu manam fi ngeen nekk yi nekk kay fekk sa kilifa. Mhm. waaw bëgg nañoo xam ni nga demee ak moom mbooloo mi yow yaa leen jiite a moom moo leen jiite. waaw moom comme ni ma la waxee léegi rek man sëriñ baar Bari Mbakke waaye sëñ Ibrahima la tudd waaye dañ koo gën a miin ci sëriñ yi waaw si sëriñ baar Bari Mbakke lañ ko gën a miin waaye sëñ Ibrahima Mbakke lañ ko tuddee waaw moom comme li ma la waxee rek wajal saxir naa wajal kabir wajal kabir naa sëñ Tuubaa moo ñu sant nañu maa ngi ñaan dana maa ñaan suñu borom eh, samay ndaw rek samay mag waaw yooyu it samay mag yërëm samay ndaw waa ah, man man daanaka ak sëñ Ibrahima daanaka euh, dafa am sama kersa maam kersaam daanaka ni ñu àndee mooy diggante taalibe ak sëriñ waaw ah, daanaka ni ñu àndee mooy diggante comme ni taalibe yi ànd ak man man noonu rek laa àndee rek waaw noonu te loolu daanaka du dañ ba yomal xiyam nekk sama kilifa nekk sama mag nekk sama lépp ci lu yaatu nag loo xamante ne su ma ko doon tënk fii sax daanaka mën naa bañ a mate émission bi waaye daal ci gàttal daal moom moom sama lépp la waaw sama lépp nag moom daanaka waaw lépp daal mi ngi si biir waaw kay lépp daal mi ngi ci biir waaw lool lool lool rek noonu daal lañ àndee maag moom liggéey bi mm, comme li ma wax sànq aljamaatu rahma moom moo ko samp ci mille 1997 bi mu koy samp it ñun ñëpp ñoo ci ànd ànd ak moom ànd ak moom ba tey ji waaw ah, ay wate du ñàkk nag euh, sooy liggéey ca di nga am pause yenn saay euh, ñi la mën a aw aw la ah, ñu mën a eggale eggale waaye daal moom sax du am pause ci liggéey Sëñ Tuubaa ah, yenn saa yenn jot yeeg ak yooyu du ko am donc ñoo koy nekkal ci waar wi rek <laughs> waaw loolu rek xalifa bi moom kan mooy xalifa Sidi Ibrahima Mbacke. waaw sëriñ Daam Abdourahmane Mbacke maa ngi koy nuyu sànq ci te maa ngi koy maa ngi koy nuyu di ko siyaar mu yàgg fi loolu te wér ak rakkam sëriñ Fallou Mbacke ibnu Cheikh Ibrahima euh, moom mooy Cheikh Ibrahima Mbacke euh, moom mooy së moom mooy sëriñ Daam Abdourahmane Mbacke. waaw soo soo déggee ñaan sëriñ Daam Atta way juróom bu jigéen moo tudd Soxna Atta ñu koy dàkkantele way juróom ji sëriñ Daam Abdourahmane Mbacke moom mooy xalifa Cheikh Ibrahima. sëñ bi ñu la si ci waxtu bi bëreetul. te lépp nag waxtaan loo xam ne nag euh, def naa émission bi neex na. Mm-hmm. te wax dëgg yàlla waxtaan nañ loo xam ne lu nëbbu woon la. Mm-hmm. te ñu bëri euh, bokk na ci li ma lay mujjee laaj rek noo moom émission bu am solo la. waaw yow sëñ Modou yow mi koy def ah, maa ngi ciy encourage bu baax. waaw maa ngi si ñaanal it fi nga ko bëgg àgg mu àgg fa ndax dëgg yàlla ñëpp koy ñëpp am na yu ma di ma wooye bi ma leen ko rek dañ ko xam kon émission bi mi ngi def ay jéego di ñaan rek suñu borom um, fi ngeen bëgg seen télé bi àgg fa uh, ngi mu àgg fa ngeen am ci lu kawe seen njortu moom tam gën ci yéen te jig émission bi ñu ngi koy rafetlu ñi ngi contane ci émission bi ñaan ñi ñaanal ñëpp jàmm ak tawféex di ko jiital ci borom kër gi man lu ci bëgg moo xam suñu borom defal ko ah. waaw kaddu gi moo am na ñu jotoon jël sax ñoo xam leen ci say talibé mhm. ñëpp ñu wax ni ñu ànde ak yow mhm. ak ah, tax ñu topp la ak maanaam lu tax ñu topp la ak yooyu mhm. ah, ñu ñu lay topp fu ñu ñu xamoon ñu la toppee ñu nekk ak ñu ak ñu ngi sant rek sant bu baax kàddu gi mujj gi maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci dangeen ñëw fii sama kër ngir sekkeek man waxtaan wu mel nii waaw ndax dama siy sawar ci di def waxtaan yu mel nii ngir dindi ndaw ñi ngir ngir ngir ngir ñi ngir teg leen ci yoon yi ngir wax leen ni ñu mën a def ba jaruñu sëñ Tuubaa waaw ndax bëgg sëñ Tuubaa am na solo. waaye waaye waaye waaye waaye fexe ba xam ci yoon wi ngay jaar ba sëñ bi bëgg la moo am solo waaw te loolu dafa am solo trop trop trop trop kon sëñ bi sax dafa waxoon ne bëgg gi ngeen may bëgg moo leen di jariñ waaye man bëgg gi ma leen di bëgg du leen jariñ waaw kon nit nag soo ko bëggee dangay fexe di da fexe ci lépp lu mu bëgg rek yaa nga nekk ci waaw loolu laay dénkaat taalibe yëpp rek di leen soññ gën a kër góorgóorlu ci liggéeyal sëñ Tuubaa jaamu yàlla fonk say ñaari waajur jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay siyaare sant bu baax di amaat nekk di ci dalal gi ñu la dalal ci tey fekk sa kër gi sa kër gi dafa ngeen waxtaan yu tëdd yu mag yi nga xam ne maanaam xam-xam bi fi génn tey jëloon naa soldat yooyu ndax ba mu xaar. Mhm. santaat bu baax képp ko xam ne yaa ngi seetaan émission bii di xam-xam ne di ñaan suñu borom def ci réew mi jàmm di ñaan suñu borom télé bi bokk ci télé yi gën a ci télé yi fii ci àdduna bi. asalaamaaleykum. ورحمة الله تعالى وبركاته بمن إن شاء الله